xam ne accompagner na collectivité yi si wàllu santé si wàllu éducation si euh, ndox également gis ngeen ko ay pavage donc fii am na aussi ay réformes yu bëri yu am solo yoo xam ne def nañ ko donc bi ñu commencé wax acte trois ba léegi en tout cas PACASEN mu nekk programme boo xam ne moom mu ngi accompagner acte trois bi am na say résultats yu baax léegi nag dem nañ ba foo xam ne ñu ngi nii pratiquement si fin bi loolu moo tax état du Sénégal ak bailleurs yi ñu ne nañu rallonger benn année si année boobu dina tax na suñ koy rallonger ñu gën a gëstuwaat encore réfléchir si beneen programme bu ñuy wax ne PACASEN de ngir nag gën a dooleel yi les résultat ñaareelu pàccu daa ñu ko tàmbali si atum 2026 lañ sa jublu du dul. fexe rek bu gën a jàppale gox yàq goxaan yi niki ni ko njiitu réew mi santaane ñu mën a demal seen bopp rawatina si wàllum financement ngir jëmmaal seen i projet li si am solo mooy que dañu bëgg Sénégal émerger mais suñu émerger dañu ji gëm na que émergence du Sénégal si territoire yi la war a commencer et territoire yooyu pour que ñu mën a émerger loolu moo tax PACASEN 2 bi nar a ñëw dinañu yaatal dañuy gën a renforcer li ñu doon def dinañu fexe ba territoire yi à la base ñoom ñu émerger donc Sénégal émerge ministère bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale di gox yeex goxaan yi dàqul sax benn yoon te tëddal pakaseen boo xam ne dañu koy jagleel département yi maanaam diiwaan yi ngir a gën a yaatal liggéey bi jëmale Sénégal kanam